waa Banjul ne ñu ngi fi ñu ngi enjoy li ñu ngi enjoy bu baax a baax ku ñu gis sax xam ne ñu ngi enjoy thank you Lamine. <laughs> jërëjëf euh, Yam Dia. naka la seen July Fourth bi demee. ma ne suñ July Fourth waaw te tey nag dañ pare fecca nag ba suba. waaw def ba mbaax rek. alors naka sa July Fourth bi. neex na trop maa ngi koy enjoy. it's bu baax a baax. loo loo waa na ma rek léegi ma ñëw seesi leen. Ah, <laughs> awa gasam nde mo be mo be ah baraka aha ah. anin na président yaaya jam <laughs> nañ seet sanse gu rafet nga xamante ne foofu la génn fi nga génn nooy na de jërëjëf ma ne ko jërëjëf Sénégal lañ ma ko ñawalee suma gorom moo ma ko ñawal yaa jërëjëf jërëjëf aji nansi maa ngi nuyu suma yaay aji fatou ndiaye di nuyu suma buro de sé suma jabar yeeg ñëpp si banjul ñun ñëpp a ngi si jàmm ñu ngi leen a nuyu nama nañ leen <laughs> jërë ngeen jëf yéen i tamit hello <laughs> naa def jaamale kay jërëjëf ah suma mbokk yëpp ak sama sister yi ay satu everybody yaa jërëngeen jëf jërëjëf maa ko tuddee Arfan Bangoura na Gambie den la nama waa Gambie naka ngeen def mag ngi leen nuyu yéen ñëpp man la kujee mbay ba defu leen dara nama ngeen ma waaye maa leen raw ku dee sanse bi rafet na trop. te sangu ma sax dama yaakamti pour ñëw. nga ne ma waaw. waaw non waaye ni nga may ni nga. su waaw nag ñu ngi a commencé programme bi ci bisimilah rahmaani ah. ci alhamdulilah rabi waaw waaw make na sense. hello to everyone. This guy's doing great F Koga Texas borom Texas a ngi nii borom Dallas a ngi nii F Koga nuyul staff connect GRTS ah xanaa di kontaan si bés bi eh, ñëw fekale ñu fi neex na torop te yéen ngeen mug di ñëw di ñëw di ñëwaat kontaan nañ torop July 4 daf dee special moom daf dee tax ñu remember suñ culture ak ñu gis suñu xarit di fàttaliku fu ñu jógee. <laughs> jërëjëf xanaa di leen nuyu rek GRTS. July 40 a jere coming organize e ka Atlanta Gambian Emergency Relief Association e ka mi organize nin sponsor fon la MD Bijan e ka fol mi Mr Alaji Universal Properties nga fala ñaami sa en korda da saŋo maŋ koleya a universal property nsal na sponsor la md mr alaji welcome to saf connect alaji in atlanta ye tv mol konte saf connect kontoŋ i fana biije ñaamiŋ ani la yeah lamin definitely n contanta baakele uh, all the way from gambia kana i soto ini moolu ye in uh, atlanta definitely wo m fenneti miŋ abeteata bakele and secondly fana you know self connect um, uh, contentale pour que ke part of it pour nga taraje ka ñu makoy ka ñu yaaya dunia mu walti fo nga ñu ngañandi nga ñu makoy son contente bakele to be part of self connect universal properties momo lafta cordala yena universal properties universal properties corda as low as wulifula dala sikeme lulu isa corda stono jele ni nga domando bang universal properties is ntollo mu ka domon domon ninna customer sol nga domon domon foy korda soto lefta kaje ko gambian ding wo ding ide be bantale walle be gambia le lafte tardinkira soto ntol gambia no nga tardinkila long andu lefta mo moy tardinkila soto ntol mo loi so long komin kalif komin ko be tiba dule yetara loi so la sanji tan saba sanji mo wanni saba mo wolong bari nkontante bagale fanan to be the main sponsor of saf connect andu nyimbe continuer lale lamini mbal ko ma bi mbal ko ma soma manyo muta ngal a fafawo wata ala barka bake ale md mo la fo nyami woto bungo mo lol fe gambe no loi so soto ni aje universal property fana mba gambe wala pour munom development lom ka to nin gambe di no gambe di ya bung soto wala ko da soto e tar la soto wo mu development nati gambe woto nyinu e ko wala ke jang wo development kilo ngole falete wala bijan ni universal properties wala tata non la jang atlanta july anin suto ba nyami mbaw fanan jela ala barka ba malam mo nir wa gambe hamna yana ngi nice atlanta ngi nice jerejef ñi ngeen nuyu wa gambe yépp daga sa jila mu ngi ne mu ngi ne hane hane hane ifamata moom moo jalata rek oji atlanta janne wotom feledal nin gamrok san fanan benta kaba all way from uh, angleterre abidjan gamro gambia tv connect Yes, champion sound. Um, Gamrock lang, yalo na cool benyamin. Uh, Gamrock is global, so for global with it to go around and represent anywhere we have a Gambian thing. So wala na kung na na cool din ulit. Ano yung bumpa, bumpa. Gambia Mall Konto. The bumpa. He is my brother, Sekou Jame. So it's like, you know, it's a family thing, you know what I mean? anytime I come here, Mace, I feel like, you know, yeah. Thank you very much. Andesan, mala doy ba jang ha sura And andesan ma jakka suma mak di lamin cham atay nak ñoy sa ñoo bi ma ko ak su jang ha ku tra ha setane ma nga ni suma fansi gambia di ñu ndesan suma yaay sura bege ñing ak ba jang ha di misse mu mak ci gambia kontana trop suma mak live live di ma gis kanam live di bees lépp a ngi fi waaw jërëjëf is a long time partner in crime ku am champion nga am passé Haidara nga am Tropicana nga am radio gaaw nga ñëwaat amaat fan GRTS kon passé wu gam passé wu Haidara say hello to Saf Connect thank you very much uh, champion DJ Lamin Cham comme ni la xamee uh, li nga wax nii mooy lu am it's been a while waaye aar bi ñoo ko bokka for a very long time Banjul la woon comme ni ko waxee Tropicana in those days ak Willie Foster dem si yàlla si yan na ko yàlla yërëm jógee foofu noonu dem radio 1 FM ñoom Moses Night Club you know ba yàlla def ñu tasewaat fi ni Atlanta Georgia in 2013 loolu mbégte bu mag la si man DJ naka guddi gi tey a Night Tonight. waaw ma ne sant yàlla ba mu bëri lii different different states or different cities you ci biir and this every year and this is just a very very good blessing that we got over here. thank you very much. There you go. These are the folks are uh, coming to you live uh, from the Gambia. Mr. Lamin Chamba and my wonderful co-host today, Ms. Mr. Chamba, we welcome you to Atlanta. Of course, a wonderful uh, crowd here today. That's what do you have uh, to say to the Ghana people? I know we will see it in our local language for our viewers back home. You can get that on your records, but we do welcome both of you to Atlanta. Thank you, Mo. We're going to say thanks to each and every one of you for supporting this event. Nilan Jerejef, Dylan Wat Jerejefat, welcome. Mbafulal Be Ala Baraka Momo Bijang, okay? Albuloko Salfonye, Dulaba Nice Ring, everything nice. Alimatu, Niel Guy. ñu leen di woo jërëjëf di la ngeen ñu welcome fii si programme Ajara bi um, July 4 2013 jërë ngeen jëf thank you everybody. mbokk yi tàcc leen pour mu ne ñoom ñoo jógee GRTS wa ànd ak ñoom nag di Universal Properties ñoom ñoom fii ci adapté suñu programme yi mbokk yi lu leen di tegtal mooy waa GRTS ñu fi ñëw pour mu ne adapté na ko ñu lan GRTS seen programme bi ñooy doxal di ñu doon def seen bi sax ko nekk ci programme boo xam ne ñu koy doxalee ca GRTS foofale ñoom ñoo ñëw pour waxtaan ak waa ANCAR te jël kii bi ñu fi def tey ñu mun koo wane askan bi yëpp nekk ak kàddu yi kon nag ci kàddu yooyu ñu ngi leen di jaajëfee di leen wax bisimilah.